bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yowmi ddin alwaxid al ahad alsamad alxayi alqayum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 سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله الحاشمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صاحب القتم المحمدي شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني وجميع آله وجميع أهل طريقته وجميع تلامذه ورضي الله عن الوالدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام أحبائي زملائي أحييكم بهذه التهية المباركة الممزوجة بالمودة والمحبة والعشق والشوق وهي كما قلته الآن بقي نيجي لين دي نيو دي لين زيار di leen ndokkeel ci liggéey bu sell bi ci liggéey bu tedd bi ci liggéey bi ñu am yaakaar sunu diggante ak ki ko sant muy borom bi subhanahu wa ñu ngi koy ñaan ci mbaaxam ak yërmandeem ak tedd ngaam ak bëgg gu mu ñu bëgg nga xam ni lu mu bind nun ñoo ko ci gënal ñu ngi koy ñaan mu defal ñu ci liggéey bi lu kawe sunu yaakaar innahu waliyun li dalika walqaadiru alayhi te kat wa ma dalika ala bi aziz di jiital ci nuyoo bi nag ak ziyaar bi ak ndokkeel bi ci liggéey bu rafet bi a cheikh a sayid alaalim almurshid almurabbi almuqaddamu albaraka alsayid alxalim alsaxi almujahid waarisi sirri cheyqihi wa walidi cheikh Cerno Xaamidu Yorobaan ayyadahu llahu wa nasarahu wa mataana bi baqaihi wa xayaati nuyoo bi ñu ngi ci jiital ku tedd ki toog Seydi Xaj Malik radiallahu an dafa yëkkati kàddu gu am solo dafa wax ne muaasara mu maasala mu aadala day yiir nit nit ki boo jamonoonteeg moom di jonjoog moom muy wax di la jox ngeen di joxalante ay kàddu bu la yàlla dimbaliwul pour nga jaruñu ci moom day jafe mën na jamononte gi nga jamononteeg moom mën na la yiir waaye kii toog ñu jamononteeg moom di jëflanteeg moom waaye sikk amul ci ne min na rijaal yal na nu ko yàlla fayal muy doomu usmaan bi toog e, wa huwa min abnaa'i Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiyallahu anhu Cerno Hamidou ci doomu Cheikh El Hadj la bokk loolu sikk amu ci radiyallahu anhu te nun nun Cheikh El Hadj moom lañ am mooy sunu teraanga tey ak ëllëg moom lu nu yàlla séddee te séddoo nanu ko te doy nanu mu bokk nag ci ay xulafaa am li li li li lil aarifi rabbaani Cheikh El Hadj Omarul Fouti xulafaa kasiir wali Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu وللحضرة المحمدية لقطاب كثير Cheikh El Hadj Omarul Fouti ay xalifa yu bari la yor dooleem téeméeri junney nit mën nañ koo séddoo te du jeex kenn ku ne yor ca lafit di dox ak moom te mën a yor jamono loolu la ko yàlla defal radiallahu taala an Cheikh na ay xalifa yu bari la yor hadara Seydul Wujuudi sallallahu alayhi wa du benn xut boo ko yor ay laxtaab ay xutb yu baree ko yor loolu nag loolu nag loolu la yàlla dogal kii nag ci doomi Cheikh El Hadj Omarul Fouti yi la bokk bokk ci ay xalifaam te alxalifatu mooy koo xam ne ala ma kaana alayhi cheikh min al asrar wal anwar wa tijalliyaat al ilahiya boo ko xoolee ci royam Cheikh Omar radiallahu taala anhu bala ñoo ñëw ci bés bi roy gi mu roy Cheikh Alaaji Omarul Fuuti radiallahu taala waaye nag Cheikh Alaaji Omarul Fuuti dëgg-dëgg tibbal na ko loolu sikk amu ci ñi ngi koy ndokkeel nag ci cër boobu tey dundal na ko sagal na ci Cheikh Omar radiallahu taala anhu moom mi def na diiwaan tagg seyduna muhammad sallallahu alayhi tagg wu rafet xasida yu yu bari yu taqali ko wax naa ko ne naa ko xasida yi nga def ci yonent bi ay diiwaan dañu war def ko ay séminaire waykat yi di ko woy firikat yi di ko firi gannaaw boo leen ko jàngalee ndax chenre way junju la boromam moo xam lëm ca lëmës def na it ay xasida yu bari yu mu tagg Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu wax ci ay qualitéem ba noppi nag liggéey ci taarixu Cheikh Omar radiallahu taala waxuma ne amul de waaye ni mu liggéeyee taarixu Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu man gisaguma ku ko def noonu man naam nag waaye man man gisaguma ko liggéey na ci liggéey bu rafet tagg na Cheikh na Tidiane ay xasida tagg xalifa Cheikh Laaj Omarul Fuuti Cheikh Mouhamadul Bachir ayyadahu llahu wa nasara tagg wu rafet wax ay qualitéem wax na ko loo xam ne ci moom moom Thierno Hamidou mu wax ko ci Thierno Mouhamadul Bachir waxuma ne am na keneen ku ko ko wax waaye gisuma ko loolu nag loolu mooy wilaaya loolu mooy xam-xam loolu mooy karaama loolu mooy karaama ba noppi nag ba noppi nag tërbiya tërbiya ba noppi xadara bi Cheikh El Hadj dénk ko ko radiyallaahu taala anhu muy barab boo xam ne barabu nangukaayu ñaan la moom barab bii ndax laa fadala li turbin ala turbin illaa bi sukkaaniha amul benn suuf bu gën moroom lu dul ña ko dëkke ñetti barab rekk ñoo gën ci àdduna donte kenn sujjootu fa kenn julliwu fa ñoo gën muy makkatal mukarrama madinatul mën a munawwar masjidul aqsa bu yooyu jàllee barab bu gën bu nekk ña ko dëkkee ñoo ko gënal fii nag barab bii barab bii barab bu ko gën da koo ëppale lu mu def muy xadara bii ñu ngi fiy jàngale diine ñu ngi fiy jàngale xaqiqa ñu ngi fiy dimbale jàmm yàlla yi ñu ngi fi tërbiye ay nit di fi joxe waxtu yàlla yi <clears throat> di fi doxal tariqa na tijaani radiallahu anhu loolu ñi mat daraja te yàlla cëral leen defuñu lu gën a loolu te tariixa bi ñu tapp garaat ñépp ci lañ ko jëlee koo fi gis mu tapp garaat dafa wàcce tër bi am ci cheikh ni tijaani radiallahu an ba borom bi xëy defal ko ca lam ko defal foofu gaa yi jaaroon nag la jaar yal na yàlla dolli ko wér dolli ko kattan dolli ko faydu bés bii nag di bés bu rëy man duma ci sori ndax wab nu labonin isa malla safi xaranin lam yastati satwatal xanaa e, qanaais la Seydi Haj Malik wax mboccoor bu tasee giléem yu mag yi na moytu na moytu waaye nag gaa yu baax yi dañuy jéggale looloo tax sama kàddu du sori ci côté boobu waaye bés bii bés la boo xam ne Euh, borom cër moo ko mën a woote gaa ñaa ngi koy def nag ci ruq yi euh, waaye woo ñaari nit ñett ñeent na ñëw leen ñu feetu victoire bi ñu ndam li ñu borom bi defal islaam bés bii la am ndam lu rëy loo xam ne moo tax mu agsi ci ñun ba ñu ba nañu na xew di man di ko xewal muy lan mu yow mu badrin moom la Seydi ji Maalik wax ci xilaas ba badru qitaalin muy fukki fan ak juróom-ñaar ci ramadan ci la yonent bi génn dajeek waa Màkka ñoom ñu nekk 1000 ñoom ñu nekk 313 di ñetti téeméer ak fan ak ak ak fukk ak ñett ña nekk junni lekk ba suur naan ba màndi ñoom ñu matt koor ñu rey ci ñoom 70 ñoom jullit yi rey ci yéefar yi 70 jàpp 70 keroog la islaam am ndam te loolu mooy première xeex bi yonent bi xeex bu toll noonu nga gis ne liñ yoroon ci ngànnaay bariwul waaye pas-pas moo ëpp doole ngànnaay pas-pas bu dëgër moo ëpp doole ngànnaay te ba noppi nag borom bi nag Samba Linguère la ku mën a farwaayam la muy borom bi subhanahu wa taala dafa far sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi wan ko ko wa qad samia sahabatu qawla jibril yaa hayzoomu aqdim bil muzooni malaaka yi ñëw nañ te benn malaaka rek ci àdduna bu na xeex waaye mu def ab lim ñëw rek pour wallu si ku tedd ki sallallahu alayhi wa ak borom pas-pas yi mu àndal ndax ñoom xeex boobu xeexu pas-pas la waaye du matériel ak doole te himmatul insaan qaahiratun ala jamil akwaan cheikh na tijaani radiallahu anhu ne na insaan bu soxlaa dara maanaam doom aadama yitteem bu soxlaa dara mu làqu ca gannaaw aras yitteem dana ko génn ji yitteem dana ko génn ji xeex boobu nag xeexu pas-pas la moo tax borom bi wallu dama yër ci tabaxaatul kubra bu Cheikh Abdul Wahab Sha'rani radiallahu anhu benn tarjumaan xaw ma Muhammad Wafa la xaw ma Ali doom ji xaw ma kan la ci ñoom te kooku sax defe naa taalibe la ci ci ci ci ci eh, Junayd radiallahu anhu ak koo xam ne taaliba la ci maaruful xaraxi mu wax mu wax ne badar am na ay ruu yoo xam ne ñu ngi woon ca àllumul waa di waliyu dañ doon xataraayu pour bëgg ñoo wallu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga loolu yéeme na ca àllumul arwaax lañ nekk ñëwaguñ ci seen jëmm te siècle bi ñu war a judd jotagul waaye ruu yi dañ doon xataraayu pour wallu si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga yëg ne kon bés bi bés bu rëy la te ban ñibbisee nag ba seen heure juddu jotee ban ñëw ci seen biiru yaay ba xëy juddu ban ñëwee e, leeral nañu loolu ba noppi dundal bés bi dundal bés bii Cerno Hamidou nag li mu yëg ci bés bii imam Moussa moom du ko xaalataadu du ko wax dafa woo nit ñi di leen bëlëf bëlëfal nii rek mais am na lu làqu ci biir y a quelque chose bés bii am na lum ci yëg billahi lazi la bés bu rëy la bés bu màgg la bés bu foor la bés la boo xam ne ña ko teewe woon borom bi def na banaa leen mbaa yàlla naa leen lu leen neex def leen loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex bi jàll na xeex bi jàll na bi xeex bi jàllee ma arrêté de ma bi xeex bi jàllee bu jataay amee ku bokkoon badar buy ñëw yonent bi day wax may leen ko mu toog wala moom mu jóg taxaw ba mu toog mu door a toog pour fonk gum leen fonk mu ne ñii sama borom moo leen fonkal boppam te bala ñoo xam lu badrin ñun ñëpp dañuy ñibbi yowmal xiyaam ba gis seen daraja moo tax bés bii bés bu foor la bés bu rëy ci ñun la <coughs> kon cer Cerno Hamidou yal na yàlla fay la yal na yàlla nangul la te defal la lu kowe sa yaakaar fa tabaarakallaahu ci bés bi eh, mag ñëpp def nañ ci ñoom tawasul nag ku bindu ku ne wax nga ci ahlu badrin dégg nga Seydi Hadji Malick ma koy junjo ca falaa budd ba bi aqmaari badrin bi aqmaari badrin yaa ilahi wa sayidi wa bil malay la alak si fan kulla qummati Seydi Hadji Malick làqu na ca ahlu badrin def ci tawasul ci boromam subhanahu wa taala ba seen lim sax gaa yi den ci liggéey dañ ci liggéey gis naa ci benn téere Thierno Hamidou mu làq mu dugal ca da koo xaw a làq nag 313 bi waaye man làqar ci naa ko ba gis ko dafa am fu mu ko làq làqar ci naa ko ba gis ko waaw man gis naa ko moom mii dégg nga fa tabaarakalla waxtaan nañu mu mu waxtaan ba waxtaanam xaw a rëcc tuuti yëgu ko mu dugg ci cent 313 wax ci lu doy waar moo tax ma ne bis bi bés bu rëy la te am na lum ci gis fa tabaarakallaahu loo xam ne moom diggam ak boroomam la kon yàlla na yàlla nangul la nangul ñu nangul jullit yépp ino wàlluñ li daalika wal qaadiru ali imam Moussa ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di ziar dégg nga kilifa yi fi nekk yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.